asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 27 mars 2020 ñëw ak yëglikaay ba nag tey Ama Baldé nu xëy indil Ama mu takku ba fees dell kay jaajam taxaw yëglikaay ba nag la mu xëy laaj mooy Ama Baldé yoon ma muy jaar ba ki nga xam ne moo di mag ja di Eumeu Sène te Modou Lô daan ko ñaari yoon nu mu koy jëlee ramas mel ni ki nag Ama ca moo mooy doon mbër mu njëkk moo xam ne mooy daan Modou ndax boobu ba tey moo nga dug Pikine di def la ko fa dafa neex te kenn mënu koo arrêté moo tax mu mel ni Ama moom arrêté ko daal la bëgg moo tax mu teg yoon yoo xam ne yoon yu mu nëbb lay doon ka nga xam ne nag moo tëgg seenu combat yëglikaay bi ne la def na ko ci kaso bi yëglikaay bi xëy ñëw wax nu ko keneen koo xam ne moom yëglikaay bi ñëw na ci moom wax ñu ko wan ñu ko muy cernu ka nag mu ngay wax de te moom la muy wax nëbb ko ne na li leer ba leer daal corona bi bu fekkente mëneesu ci dara de dee mu su ko taxaw la moom ah jàppal ne compétition yi moom bloqué lay def ndax nag ku amul la nga bëgg am la fa sës loolu mooy waxi ki nga xam ne mooy Thierno Ka ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne mooy sunu làmb moom ka xëy ñëw dalal ko séq moom waxtaan mooy ñaq jariñu ñaq nag moom mu ngay wax la ko naqari ne na day aj biñ ko aj d'accord na ko mettiwu ko waaye li leer ba leer daal li gënoon mooy nit ki moom boo koy sanctionné wala nga koy teg ci aw yoon boog nga déglu ko wala nga déglu ñaari camp yëpp waaye nee na ñaq ne na loolu amu ci maanaam daal dañoo xëy rek jël seen ay décision aj na loolu moom est-ce que noonu demee da jàpp na ne daal déglu leen moom ko mënoon a def moom moom la da koo weddi maanaam daal ànd la mu jàpp mooy moo daan jam tëri dëkkal Pikine nag wala ña dëkkal Pikine muy Jordan wala muy ki xam ne nii moom moo di ñoom nag fi mu moom seen lamb moom dox moom da koo def ndax bu Jordan yëglikaay bi la ko commencé 2014 ba 2020 bii nu day boo xoolee ñaari defet la fi am def fi juróomi année balance yoo xam ne daal bëreete na ko tij mu ni kon moom daal yëglikaay bi ne ka nga xam ne Pikine la dëkk tamit di Cobra 2 moom fi mu nekk nii moom ne nañ 2017 ba ko a soog taxawloo daal stoppé ko dem ne na boobu ba tey fi mu nekk nii pour mu ba jógaat naaw moo ko të moom Cobra xëy ñëw tey wax nu lu ni ki noonu waaye dañuy continuer dem fa nga xam ne nii moo di ca record record nag tey ñaar ñoo xam ne daal ay wuj la leen jàpp ci lamb ji ñoom la xëy andil ñu leen muy Balla Gaye numéro 2 ak ka nga xam ne moo di Modou Lo ñoom ñaar nag sunu lamb ne na boo xoolee comme ay seex waaye daal li am ba des mooy boo xoolee seen carrière dafa xaw a nuroo ndax nag Balla Gaye 2 2 janvier la ñëw ci lamb ji premier combat mu bëri ko ak ka nga xam ne moo di Samba Lawbe daan ko Modou Lo ñëw la 2 février wala boog la 4 février digganteem ak Pape Sène 2006 la woon loola mu daan ko Pape Sène numéro 2 yëg li cabinet nag ñoom ñaar ca lañ ku ney wane sa bu dee ay ndam Balla ko ëppale ndax am na 21 victoire Modou Lo am ñaar fukki victoire bu dee li nga xam ne mooy ay combat yoo xam ne te daanu woo ko moom Modou ko ko ëppale ndax Balla boo xoolee la yëpp di ca am ay ndam muudu moom jamono jooja quatorze la def yoo xam ne am ca ay ndam la teglante waaye li leer ba leer am na foo xam tamit bal raw na ko fa muy ci ki nga xam ne mooy Tapha Gueye Tyson ba ci Yékini ñii ñëpp ay icône daal leen yëglikaay bi tudde moom record waaye terewul ñooña Balla Gaye daan na leen te muudu ñett ñetti ñooñu bëriwu cee kenn wala mu koy daan leneen loo xam ne tamit am na ci ñoom ñaar yëglikaay bi nee na muy Eumeu seen ma ñu bokk Balla moom ñaari yoon la ko Eumeu Sène daan waaye muudu moom daan nga xam ne moo di Eumeu ñaari yoon mel ni kon yëglikaay bi na boo xoolee daal quatre-vingt-quatre pour cent de réussite pour Balla Gaye quatre-vingt-six pour cent pour ki xam ne mooy Modou Lo de réussite ñoom ñaar nag roi des arènes tamit ñoo ko bokkule ndax ku ci nekk dégg nga roi waaye li leer ba leer am na loo xam ne Modou am na ko tamit te Balla amu ko mooy la nga xam ne mooy flamme olympique ba moom Modou téye na ko daal di cay doxal te Balla amul loola waaye leneen loo xam tamit ñoom ñaar boo xoolee ñëw nañ ca yëglikaay ba wax ko mooy ñaar ñoom ñëpp wala ñoom ñaar ñëpp nekk nañu ay ambassadeur Balla Gaye de nommé nañ ko fi ambassadeur de la paix pour Modou tamit moom tamit waa kuri ambassade mel ne ki ñoom ñaar nag ay wuj lañu bu baax a baax donte seen carrière ba la muy niroo niroo waaye taxul ñu xajoo ñoom ñaar daal ku ci ne daal bu bëggee dégg-dëgg dañoo mel ne ñu toggoo jit te kenn nangu da féete ak fette ga record a xëy tey ñëw wax nu ko ci gëstoob ka nga xam ne moo di Abou mu mel ni ki bu nu continuer tamit fa nga xam ne nii dañuy dellu sax fa nga xam ne mooy sunu làmb foofa nag moom kañ fa xëy gis mooy président Massamba Dieye ma jiita groupe mel ni ki ñoom nag ginnaaw ba nga xam nekk nañ ci làmb ji di xeex non violence ba réussiroon ca lu baree baree bëri mu mel ni ki nag fi mu nekk daal la ñu naraat daal ginnaaw bu covid 19 bi jeexee mooy dellusiwaat songaat xeex ba ndax nag la amoon ca diggante Alioune Seye 2 ak la ñuy bañ mu amati ca la nga xam ne nii moo di làmb ji loolu yëglikaay bi di sunu xëy tey wax nu ko mel ni ki nag covid 19 booba moom boo bëggee dégg-dëgg ka nga xam ne moo di liiru jaan ak rëg ñu nga ca Leewtoo TV di wax ni ña ñu soññu leen ci wàllum daal cet gi ak moytu feebar bi ndax nag jàpp nañ ne lii day lu am la te ku nekk war nga ko mën a moytu yëglikaay baa xëy tey ñu wax nu ko am na ñoo xam ne moom ñu ngi koy moytu muy ñi nga xam ne nii ñooy mooy waa Action Dramé commune diaspora ñooñ nag daal waa ANCD la ñu tudde seen bopp ñoom daal ay saalum saalum lañ la ñu def mooy jënd lépp lu ñu mën a jënd ci luy satal ak luy indi xëy jox ko seenub dëkk ci seen njiital président Moussa Cissé ak ki nga xam ne mooy faafa Fall ak ka nga xam ne mooy Elas Touré loola la ñu def mel ni ki nag loola boo gisee tey ñu wax ko li war a am mooy sénégalais bu nekk fi mu nekk ni war ngaa jël ci la nga am ak la nga mën jàppale ci nit ñi ngir que lii nga xam ne mooy corona bi mën fee jógee te yàlla na ko fi yàlla jële barke yonente bi sallallahu dañ leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah rek di leen nuyu di leen ñaanal jàmm di leen a ñàkk di bu baax a baax di leen wax ne tey gis ngeen comme ni ñu koy rek ak revue de l'arène bi waa du mën a ñàkk comme fi nekk nii ñëpp lañ quarantaine moom yéen gis may toog chaque jour fan yi di leen indi li nga xam ne mooy seen revue de l'arène waa di ñaan jàmm Sénégal di ñaan Covid 19 bi jeex waaye tamit di wax ne que daal te yëglekaay yi entre Ama Baldé nu muy def ba daan Modou Lo ak plan ya mu teg ak yooyu waaw loolu defe naa mooy li war a am plan yi muy jaar pour daan Modou ndax nag dana yomb loolu dañuy yónni yàgg loolu mooy wax ji ka nga xam ne mooy lig moom tey am na téeméeri fan ci kaso bi ñu ñaan yàlla yàlla na génn ci kaso bi ak jàmm ni ñuy ñaane daal covid 19 bi jeex wala boog man Babacar ni may ñaane coronavirus bi jeex noonu lay ñaanale la te koy apporter maanaam développement la ci réew maanaam maanaam soutien la bu baax a baax ci développement Sénégal kon lig yàlla na génn foofu mu nekk waaw loolu moom koy ñaan su ne Thierno Ka itam wax na ka ni daal ah lii bu fekkente ne moom taxawul moom ne kon compétition yi moom mooy loolu ah loolu moom defe naa ne dañuy ñaan yàlla mu arrêté ba lépp mën a continuer ndax nag loolu mooy li nga xam ne mooy jàmm ji mu arrêté pour lépp mën a continuer leneen loo xam ne tamit ba tey ñaq jariñu wax na ne ñoom dañ leen a aj sans ñu déglu leen dañ leen a waroon déglu waaw bu dee loolu am na moom man damaa jàpp ne ku ñu nar a aj xanaa waras ba war a gën a mën a jaar ci aw yoon mooy ay waxam moom ñax jëriñ ci yëglikaay bi di sunu lamb bu ñu demee la Balla ak nga la ñëw la ñëw Modou Lo ñëw février mel ni kon ñoom ñaar nag seen parcours boo xoolee ci ndam itam niróole nañ ko niróole ay presque lépp daal waaye taxul nag ñu mënee ci kujje ci biir lamb waaye nag dama naan bañante loolu lépp sport la rek waaw ñoom ñaar nag nekk nañ ñoo xam ne am nañ méritu lamb muy Balla muy Modou ndax tey am na foo xam ne yóbbu nañ fa lamb ci seen génération yombul mbër def ko ñëpp si aaju ma ci ñaanal ñëpp waa di wax que ni yàlla na ñëpp am jàmm Serigne Ndiour sama xarit ca Italie du ko fàtte maa ngi bu baax a baax a di nuyu tamit encore une fois Awa Diop di la a féete barke koy nuyu ca Mauritanie moom tamit di nuyu Amina bi nga xam ne moo jiite xarañ moo ñu boole calki bu Balla Gaye 2 tamit du ma ko fàtte di nuyu képp koo xam ne daal doomu aadama nga waa groupe baax Massamba Dieye ñoom Issa Lamine bu ëma seen ñoom ñëpp bëggee naa leen di ñaanal ñëpp jàmm xaadim du ma la fàtte xaadim walla xaadim ja xaadim bu groupe baax xaadim bu Sénégal yàlla na Sénégal yëpp am jàmm waaw di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu tamit ñi nga xam ne waaw ku mel ni mbër yi nekk à l'étranger ku mel ni liiru jaan ñoom rëg-rëg rëg-rëg sa mu ngi Sénégal ñoom Basoka ñoom ñëpp ku ci na tey yaa ngi def ay vidéo di sensibiliser sénégalais yi gis nañ ñoom Basoka ci Leewtoo TV gis nañ fa Reug Reug ak Lirou Diane gis nañ leen feneen feneen tamit ñu nga fa mel ni kon daal actuellement xeex bi ñëpp a ko bokk yàlla na fi yàlla def corona bi jóge fi waaye liñ ciy gën a rafetlu tey nag mooy ña nga xam ne ñoom ñooy waa Ndramé euh, waa Ndramé commune yaa ngi dégg waa Ndramé commune euh, na ndax xoolee jël nañ ay li ñuy raxasoo ak yëpp jox ko seen waa dëkk mel ni kon loolu te ay citoyen lañu loolu defe naa mooy li war a am tey ñaan yàlla covid 19 bi jeex barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ku ci nekk delluwaat ci say action yi nga xam ne moom nga doon dox